la campagne électorale. ci wolof rek ci maintenant on attend. bon maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci rajo bi ñëw naa fii ci HLM Grand Médine voté fi may sant administration parce que gis naa ni liggéey bi en tout cas fii ci parcelle Assainies ak fii ci HLM Grand Médine liggéey bi jaar na yoon. ma ci beral sant nag les force de défense et de sécurité police gendarmerie ak ñëpp. fii ci parce Parcelles Assainies moom police la ñu leen di félicité ndax matuwaay jël nañ ko pour ñu mën a voter ci ci jàmm. gis nañ ni nag vote bi nit ñi bariwuñu en tout cas ba tey ji loolu la ñuy wax la ko waral xamaguñ ko mais ñu ngi ñaan sénégal yi ñu génn dem voter ji parce que aussi loolu mooy démocratie euh, bu ñu nekkee ci élection da ku nekk génn ñi war a génn. génn dem ci bureau de vote bi ci jàmm ak salaam ba pare voté tànn ki nga bëgg. loolu la ñuy ñaan sénégalais ñu ñu def ko bala dix huit heures. bala six heures waaw euh, sant yàlla sama xel. de moom mooy. Euh, waaw waaw sama xel dal na bu baax a baax a baax bon fi mu nekk bëgguma tudd ay waxi coalition ak intercoalition parce que campagne électorale bi jeex na. donc euh, fi mu nekk c'est le citoyen qui vient qui vote. j'ai le privilège d'être tête de liste peut-être mën naa yem ci loolu. donc euh, li ma war a def euh, euh, def naa ko maintenant nit ñi bëriwul ñu leen ñaan ñu ñu ñëw am sama xel dal na ndax ci campagne lañ jóge campagne bi ñu def nañ ko ci jàmm ak salaam ñu ciy sant yàlla bu baax ndax campagne li ci xaj bari na. amoon na nag ay xeexoo mais ñu suñu coalition sax d'ailleurs amuñu problème boobu bien au contraire nit ñi dajal ñëpp ñu nekk ci langu wujji gi dañ doon. dañu dañ doon kaf ree euh, saafonte bu ñu paree ku nekk jëm ci sa programme te defe naa noonu la démocratie war a doxee. na am nañu yaakaar bu baax ndax nit ñi déglu nañ ñu nit ñi teeru nañ nit ñi bëri nañu. maintenant nag tey la bés bi dañu xaar fii ak bu 6 heures jotee xam naa li ci topp dinañ mën a xam man lan la nit ñi gisee programme yi ñu leen proposé.